meew ñu xam mooy bi ci nag yee xar yi bu ñu joxee ñu lekk de waaye ay génn ndox feeg indi nii <sighs> da ngay xale rek looloo tudd karaamatul ay nii du dara seen bët yi lañ lëndëmal du dara ku dem ca waaja ku dem ca waaja fekk fa gaay demal Saalum ñu nga ak maam yoo xam ne ci lalu gattax la ñuy tëdd seen ne kenn pero nga ko suuf la fel yee lay màtt billahi wël kitaabi soxla boo leen wax fii lañ koy fajee nga dem juróom-ñaari dërëm lañ lay laaj ñi ñetti fifteen ngay joxe waaye kuy wër ne maa man mano ña a nga toog ñu di leen wër waaye dara lañ manu bëgg a nax nit ñi rek ku dem ca waaja fekk fa gaaya dama toogo benn waaye ci gàmmu Cees ji paase mu fekk ma ma toog am ko ma booleeg moom ne ma boroomi jinni la ma ne ko dangaa yor jinni mu ne ma loolu la ñu wax de ma ne ko non dama lay laaj rek boo yoree jinni ñu waxtaan maa man yoruma jinni parce que man jinni pour man c'est c'est euh, xaleel la du dara yàlla yónniwul jinni nit la yónni yeneen yi mahfuz gis nga ci jinni yéen gis ngeen dégg ngeen ci jinne yonent yàlla Suleymaan daan trotti jinne di leen dóor karawaas ñuy tàkk di dagg di leen xuusloo ci géej gi ñu indi jamaa di ko jox wa is saraf naa ilayka nafaran minal jinni yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla yónni ko ci jinne yi ñii di ay taalibi am nañ jàkk am nañ jumaa ma ne ko ne dama lay laaj ndax danga am jinne mu ne ma ah gaayee ko wax na ma ne kon yoroo ko mu ne ah, loolu gaay wax daal ma ne ko lu jinne di xeeñ mu ne ma xaw ma ma ne ko xam nga garabu néew néew bi ñuy lekk mu ne waaw ma ne ko li muy xeeñ la jinne di xeeñ léegi li nga dégg ko ne dama am taalibi jinni moo ma yónni taalibi dana yónni sëriñam ma defoon sëriñam yónni taalibi ay masque lañuy ñuy jënd Mahfouz ma wax la ko te ay masque denc masque yu garaaw nag la su ma la waree seet si man li ti léegi paj mi réseau la réseau la jigéen ñi dañ cee bokk xale yu góor yi bokk ci ku ne da ngay uti client indi man maa ci réseau bi yor naa ay masque am na jaan yoo xam dañ leen di may chaîne xam nga loolu maa footi fii lii fi ne dara néew fi dañ leen di may chaîne am na bar yu ñuy may chaîne am na mbëtt yu ñuy may chaîne temps boo ko jox rek la su waa ji bëggee dugg danga koy may seen bu toogee tudd mu naan ñaarararararar ci biir naan ko moytu jinne yaa ngi maa la ko <clears throat> moytul jinne yaa ngi bëgg a ñëw fekk dara nga ne ko bu guddee nga ñëw ki war a faj sa soxla danga ko fekk ñu waxtaan man ak yow mafu ma jël sama waa ji solal ko masque sol yëre yu ñuul sol masque yu ñàng ma ne ko nag sa baat nu mu xumbee xeeb ko ma ne la duggal ci néeg bi bul tiit nag ndax moo war a faj sa soxla bul tiit ngeen tëll ci biir mu yuuxu wut si la ñàngal noonu nga bëgg a daw mu ne la bul daw bul daw xanaa du yow la Mahfouz ne waa kii fu mu xamee sama tur su yu bu nax yaag fen ya jeexee ba waaj a dem maa yow ñu toog waaw gars ñu ne kii laaj ma ne 4 millions laa ko laaj jox na ma ñu sédd waa réseau bi te bu waa ji ñëw di fay si 1 million réseau bi am na commerçant yu ci bokk kenn ku ne da ñëw toog. yor 10 millions kii 5 millions kii 30 millions su waa ji ñëwee toog ñëw soo tut tut war a dem liggéey man waa ji daa waa ji ay est-ce que déggul li ñuy wax sax sa waaye moom ngay seet man ne waaw man de moom laay seet 1 million laa ko doon yow noos nga man 30 millions laa indi kii ne man 20 millions laa indi kii ne man 10 laa indi ko defee mu gën a dëgëral sama ngëm or que ay fen la gëm leen yàlla ku jaaxle jullit ñaari rakkaa ñaan moom xamul lu jinnee xeeñ gis nga jinne fii lay doxee fii fii lu doxee ndëggu di fii la am nii koo dendal soxna si muy xeeñ neew jógal dem jinnee de loolu rek moo fi ne dañuy nax nit ñi rek moo tax ay soppi génnee bijj nag soppi ay meew karaamatul ay nii dafa garaw man su ma neexee yow ma bind sa tur nii ci suma baaraam rek effacé ko def nii sa tur ne fàng man su ma neexee te danaa la ko wax du dara gëmuma ko moo tax jëlal sondel jëlal sondel fii la ko gars yi def dagg sondel dugal ko seen biir wey nga xam ne doo ko xam su ñëwee ñëwatul nga ne Mahfouz mu ne nii fekk sondel bii bind de sa yaay nga ne diw moo bind su ma paree ma ne saafara laa ci sunguf laa ci def sunguf si këriñ bu ñu dëbb la sot defal fii këriñ def nii sooy bàyyi rek Mahfouz génn sa tur yaay génn yii rek la karaama du dara ay naxe la rek ak togg ci kaw jaww ji du dara teg nii njaq nii muy baax du daara ma ne la bu baaxee mën naa bu bu tàngee bu tàkkee mën naa faj sa soxla waaye bu saxaaree mënuma ko ñu toog ba mu yàgg mu ne jëppet du dara am na benn affaire buñ daan jaay di ko toccami ko bu jëkk nu mu tuddoon non non gis nga boo ko jëlee dañ daan jël loolu boole ko doom bi ñuy jaayee pharmacie day xon nga dëbb ko ba mu nooy soo ci sottee produit bi boo ci sottee sunguf bi ci lay tàkk yooyu la gaa yi nekkee bitim réew kàccan ma ci nag kàccan ma ci maa ko tere ñu bëri ne leen ribaa la sëñ bi man yàlla yor sama mbir ma radi rek galaas rek ndox rek sàcc yi séquma ak ñoom dara dañ leen di nax lànk leen dañ leen di nax yooyu da nga koy teel a jàng garde ko ndax ñu mel nii mais boo ko jàngul gis nga soxna ni muy tiit moom naan ba jéen beeg day génnee ndox am nga ni kii bu yoroon dara ñu nax ko léegi waa ji mën na koo takk sax ci biir jënam yooyu ci am xam moom day am ñeex de bu ca yax yàpp nekkul jarul xeex anañ wax dëgg gi rek ah Iran bu dee bu àndeek état mu mosal ma état lay waxal waxaluma état waxaluma sëriñ waxaluma borom alal kenn rek lay waxal mooy yàlla kenn lay roy mooy yonent bi ku yor sa xaalis teel nañ leen waxal yàlla yi ngay dégg ci commission yi yëpp xam nga xanaa xam nga dañ lay mosal waaye yow nangu ko bu ko ragalee teg tegal euh, ma yëgaleen leen nag man du déglu yàlla dimbale ci commission yi du xam nga alquran yàlla bi mu diglee koor daf ñu bàyyi nag ñu seet bu weer wi jotee ñu dem seeti ko ma wax la kañ laa um <laughs> doo ko gëm man dama wax yéen ñëpp jàpp ngeen ko ma ne ku gis weer wi wax ma ko dégg ko wala déggoo ko sous raison bi ci ñun lañu ñu waaj ko wala déggoo ko man dama toog saaliwo nga nele ma bàyyi sama téléphone bi ma paree mu ni ma ndoy oona ma nga tëj sa téléphone nee na dégg na bi ay Mali sous raison bi am na ñu gis weer wi ma ne ko doy na alxurru ala ma qaala maa ko waxoon danaa ko def ma oo sama jabar oo ne ma tonton loo xam ci weer bi ma ni ko dégguma ci daal mu ne man de dégg naa boori Gàmbi ak Mali woor na ma ne kon nañ woor man loolu laa ci am man ay commission man yàllaa may loo si nga yi ñuy xewal ci réew mi nañ ko bàyyi waaw nañ ko bàyyi Mahfouz foo déggee weeru feeñ ku la woorloo du yàllaa la woor la bu weer nu mu la waxoon Moustapha nee na suumu li ru'yati yi waftaru li ru'yati su feeñee woor leen bu feeñee wori leen man tënkuwuma ci commission waaye léegi bu fekkee ne weer dañ ne feeñ na altine kañ laa woor ah waxal kañ laa woor talaata man talaata laa um man Iran talaata dama dégg rek seede ndégóot dagan na de seede ndégóot ñu jàng trois xam nañ seede ndég mooy déggoon naa dee xadi mayoon nañ ko maas ñu sukkandiku ci loolu topp ko ah, dégg naa feeñ te man yàlla laay wooral wooralu ma nit sama xiif bii ni mu mi barki yàlla te kenn duma may kafe kenn mayuma suukar kenn mayuma lu ma ndogoo man danaa topp koo xam ni ay kilim la taal ñu wër ko mun ne ci al dinaan feeñ naan fay ba suba maa lànk maa lànk altine laa dégg ne dégg ne talaata laa woor maa la wax loolu talaata laa ay commission ay commission jotee leen weer ba ci dog ba ci dog gis nga li ci xew léegi ak ak euh, nu mu euh, tudd nu mu tudd arminaat yi ñuy def ñi naan nañ ñi naan nañ julli la cinq ñi naan la six ñi naan la ñi naan la douze ñi naan la treize ci la julli ñun naka la ñuy naka la ñuy bokkee jant bi wuti julli mais munul nekk mais munul nekk mais yooyu yëpp mais yooyu yëpp bëgg daraja rek te dañ koy jaay dañ koy jaay bëgg daraja rek bëgg daraja rek. kon li may digal nit ñi fu julli joti jant bi sooyee julli fu jant bi sooyee dogal su fajaree cinq heures du matin xëddal moo gën a wóor soo xëddee naan pare ci pare ci wala kenn yàqal sa diine koor gi yàlla ñu ko sant ñu sant